assalamualaikum mbok internet yi ñu leen di nuyu bu baax di leen ziar di leen jéggulu di leen balu àq di leen balu àq di ñaan yàlla suñu borom mboolem ñu jéggal euh, di ñaanal mboolem waa réew mi yépp yàlla defal leen jàmm di ñaan weer wi nga xam ne moom la ñu waaj a dugg muy ramadan yàlla ñu yàlla may fekkee ak tal ñépp ànd ak wér bañ woor ko comme niñ ko suñu borom digalee loolu moo waral tey jii ñu ñëw bëgg a def benn vidéo boo xam ni dañ koy jëmale ci euh, weer yi nga xam ni yàlla suñu borom da ko tudd ci alxuraan muy weeru jullit te am weer boo xam ne si da cee beru nekk weer boo xam ni mu jullit ñépp di bàyyi xel la muy ramadaan rawatina nag fii ci réew mi ñu nekk muy Sénégal mu nekk weer woo xam ni saa bu yegsee rek wala bu jegesee day bëri wax wala mu bëri ciow loolu mom yakarna euh ci suñuy maam la won ba légui mu nekk étape bo xamni nak ñun réew mi yépp war nañ ko wéssu ndax ñun ñëpp ay jullit lañ té ñoo bokk bénn jubluwaay way fiñu commencé rek moy wér ndax buñu sétlo fi ci Sénégal wér mom liñ koy faral di sétlo lu ci ëpp bala ciow am rek ñu dëgmal weer bi nga xam ni mooy ramadaan te nag mbokk yi jàpp naa ni nekkul li nga xam ni mooy li gën ndax ay nit bu fekkente ne dañoo bokk benn gëm-gëm bokk benn pas-pas bokk benn réew nekk ay dëkkandoo ñun ñépp ñu bokk fu ñu jublu muy ci yàlla suñu boroom bokk benn diine bokk benn téere war nañoo am benn jubluwaay waaye li ñu seetlu ci weer rekk mooy weer wi nga xam ne moom lañuy coow muy weeru ramadaan weer woowu rek mooy weer wi nga xam ni saa bu yegsee rek coow da cay bari lool te loolu nag e, lenn waralu ko lu dul kenn ku ci nekk dafay xëcc ci jëmale ci borom mu nekk loo xam ni war nañ ko weesu li ñu koy weesu la nag mooy kenn ku nekk ci ñun doyloo moroomam doyloo ba nag fa muy tàmbale mooy kenn ku nekk jox cër moroomam ca la nga xam ni moom la nekk euh, damay faral di wax ni weeru koor pour ñu régler ko faw ñu régler yeneen mbir yi nga xam ni ñu ngi koy jëflante ci suñu biir ba pare ndax bu fekkente ne nit da nga ni yow nitu diine nga te yow ñi nga xam ni ñoo nekk ci réew mii di fi dund ñii am fu ñu gëm ñii am fu ñu gëm te saa boo waxee rek sànni ci ñoom ay wax yoo xam ni day metti ci seen xol ba mu waral ay coow loolu dana waral benn la ci yi nga xam ni boo taxawee fële ni ma nitu diine laa gis naa weer bi wala fii laa sukkandiku gis naa weer bi ñenn ñi duñu la gëm ba waraloon nag am ñoo xam ni dañoo jógoon taxaw ni dañoo def benn commission boo xam ni dañ ciy séentu weer mu nekk loo xam ni nag réew mi yépp dañ koy bàyyi xel waye saa su nek rek muy indi ay woro te senegal nak dañuy wax ni ñun ñep benn lañ waye bu wër koor jotee rek ciow day bari lool mu nek lo xamni nak luñu wara régler la benn yoon ñu paase ko mu jall loolu nak du mëna am mukk lu ñu sukkandiku ci li nga xamni mom lañu suñu borom wax mu nek lo xamni lu wër wër la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ni gis leen bu ngeen ko gisee na ngeen woor bu ngeen ko gisee tamit na ngeen wori loolu nekk na loo xam ni am njàngale moo xam ni àdduna euh, du ko du ko mas a weesu maanaam fépp foo xam ni jamono toll na fa ci wàllu xam-xam yu bees yi nga xam ne moo xew ba ñu bëgg cee sukkandiku tamit njàngale njàngalem yonent bi sallallahu alayhi wa sallama te mag ñi bàyyiwuloo ñu ko fi jamono du ko weesu mukk muy jàkk mbaa fanweer boo leen ko gisee ngeen woor ba ñaar fukki fan yaak juróom-ñeent ngeen séentu boo leen ko gisul ngeen mottali fanweer loolu dikk na ci ay ay waxtaan yu bëree bëree bëri yoo xam ni amoon na ci jamono yenn bi sallallahu alayhi wa sallama ak taabi'una yi ñu toppoon ci moom ba ci suñ mag ñi ci réew mii nooñu lañ daan doxalee kon nag yaakaar naa euh, buñ demee ba tey euh, ñu war a séentu weer saa buñ koy séentu rek day mel ne ñun bokkuñu benn jubluwaay muy bi yàlla bi te yàlla nag lépp loo xam ni wax na ko saa buñ ko wanee gannaaw rek mën nañ ca am ay jafe-jafe yenn saa yi sax nga dégg ko naan dañoo war a sukkandiku ci xam-xam yu bees yi ngir di woor ak di wori may wax ni loolu njuum te lu mag mag la li ma d'accord kay mooy ñun ñépp ñu àndandoo boole ñaar yépp ndax benn mënu dem bàyyi moromam ndax xam-xam boobu ñuy faral di wax euh, te ñu koy sukkandikoo ngir mën a séentu weer wala xam fu jamono bi toll yooyu yépp euh, lu wér la waaye mënul dem bàyyi ñuy gis weer di ko séentu saa buy ñëw ak buy dem kon yooyu yépp nekk na mbir moo xam ni mbir mu ñu war a régler benn yoon la ñu mën caa jóge euh, fi mu toll nii nag mu ngi commencé di am ay coow ndax li nga xam ni mooy euh, weer wi muy weer koor nekk na loo xam ni yàlla suñu boroom moo ñu ko sant su fekkente ne ñun saa bu ñuy dugg ci weeru koor xuloo lañ ciy duggee saa bu ñu ciy génne xuloo lañ ciy génne kon war nañoo xoolaat bu baax a baax la nga xam ni moom lañu yàlla suñu boroom wax mu wax ni Euh, na ngeen woor ngir ngeen ragal ma kon yaakaar naa koor duñ ci mën a jële lenn lu dul ragal yàlla suñu boroom kon saa xamante ni ñun ña ngi woor ba pare wala saa buñ dëgmalee koor xiiroo ak ŋaayoo rekk lañ ciy seetlu mooy wane ni koor gaa ngi ñëw saa buñ ciy génn tamit li ñu seetlu mooy ni koor gaa ngi ciy génn ndax ab coow lañ ciy génne kon yaakaar naa war nañoo xoolaat bu baax a baax a baax ni suñu koor fan la toll ci ñun ndax yaakaar naa bu ñu waree ñaar fukki fan ak juróom-ñeent wala fan weeri fan war nañoo am loo xam ni moom lañ ci jële liñ ci war a jële mooy ñun jullit ñépp dañ ci war a jële ak ragal yàlla te ragal yàlla bu amee rek benn noo nekk benn day daati am te li ñu seetlu nag mooy loolu manqué na ci bu baax a baax a baax a baax te fa mi gëna fessé moy ci ñi nga xam ni ñoo mbir mom kon yaakarna mbir mi nek na lo xamni ñun jullit ñepp war nañ ci taxaw def ci ay waxtaan ba jubo ci genn kaddu donte la yombul waye ñi ëpp ci réew mi war nañu mëna depp ci benn kaddu di worando di worendo ta du am benn ciow lolu nak dara duñ ko may luddul ñu sukkandiku ci li nga xamni mom lañu yentu sallallahu Alaihi Wasallam digal te ñu ya ci legi yaakaar nyep sunyu siiw na ci ñepp suñu serigne cheikhul khadim ci jamono euh, mag bis dana ñew ma ngi dem bàyyi len coow ak coowal wer waye boba na ngeen folli seeni nopp fal seeni beut folli seen nopp fal seeni moy jak mba fanu yar parce que abdul ahad jambar ju mag jojé andi won na ci ay leral ci ay jamono mom moko mo nettali woon waxi Serigne Touba do dal ni jamono dana ñew coowal wer dana bari lool te yegsi nañ ci mu digal ñu ni bu boba nak da ngeen folli seeni nopp fal seeni bët mooy jàkk mbaa fanweer loolu saa bu ñu ko defé rek mo nek njangale mu nga xamni ni lu mat seuk te ñu ko ak li nga xamni moy jamono moy ñi nga xamni ñoy ñooy ci walu aduna wi ñu boole ñaar yépp accompagner ko bu ko defee kenn juumte du ci am waaye bu fekkente ne kenn ku nekk dafa bëgg a toog ci ruqam rek daan man euh, ni ma ko déggee rek loolu mooy dëgg ni ko keneen déggee du dëgg bu boobaa loolu mooy indi li ma wax sànq mooy xiiroo beeg ñaayoo bi da ngay gis sax koo xam ni comme exemple ñu ni dimanche la séentu bu njëkk am na ñoo xam si dimanche ñoom daañ um koor léegi bo umi koor ba pare nak dal dem ci télé yi rajo yi dal ni ku wóorul tey euh, def nga lo aram de dèjà lolou bu amé rek xiro ak ngaayo day daati ñew nga gis tamit keneen ki nga xamni mom moy um ci dimanche ba mom tamit bu umi dal ni tay ji moy bis bu njëkk ñi woron demb teguñu ko fenn bu ko defee kenn ku nekk euh, di sanni sa morom ay wax yu ñaaw yo xamni ci benen côté luñ ko waroon sento waye du ñun julit ni rawati rawatina ñu bokk lépp kon yaakaar naa mbir mi euh, muy weeru koor euh, euh, ni ñu ko yàlla tënkalee rek te lenn kese lañ ci mën a jëlee lenn dong lañ ci mën a jëlee muy ragal yàlla kon wax ji mu gudd mu gàtt saa boo xamante ni woor nañ ba koor gi jeex te jëlewuñ ci lenn lu dul ragal yàlla war nañoo xoolaat ñun ñu doon def lan la ndax ñun dañ doon mar ak di xiif kese am ci coono kese wala dañ doon woor woor goo xam ni moom la suñu borom nangu loolu nag lenn duñu ko may lu kenn ku nekk nawloo sa morom euh, bu fekkente ne juboo munta am ci ñun ñëpp ñu woorandoo di worendoo kenn ku nekk la sa morom nekk nga respecté ko te jox ko ca cër te xam ni yonente bi sallallahu alayhi wasallam moo waxoon ni xeet wi seenu wuute yërmande la waaye seenu tàqalikoo moom mooy musibama ta te tàqalikoo nag mooy di xiiroo ko ŋaayoo waaye su fekkente ne man dama woor tey kii woor suba te kenn ku nekk jàpp sa moroom la mu def baax na bu boobaa loolu lislaam du ko dàq mukk waaye la lislaam di dàq mooy kenn ku nekk rek eh, di xarab sa moroom ca la mu nekk jàpp ni yow rek yaa am dëgg ndax lislaam moom dafa am ay njàngaleem yu yaatoo yaatoo yaatoo yaatu kon ñu xam ni eh, eh, weeru koor moo ngi noonu Euh, ñun ñëpp war nañ ko bàyyi xel bu baax a baax xam ni résultat bi ñu war a jëlee mooy ragal yàlla suñu boroom saa bu ñu ragalee suñu boroom rek ñu xam ni woor nañ ko nañ ko suñu boroom diggalee te loolu lenn du ca jiitu lu dul ñun ñëpp ñu wegante ragal yàlla la ca jiitu mooy nga wekk sa mbokkum jullit weg sa mbokk mi nga xam ni bokku leen diine te bokk réew mi loolu bokk na ci ponk ragal yàlla ñu bëri dañoo jàpp ni ragal yàlla moom mooy. nga ragal yalla rek li la yalla sant moy julle wor nat azaka dem makka loolu rek moy ragal yalla waye ragal yalla da ci bokk nga am ak màndute gu mat sëkk ci jaamu yalla yi ak lepp lu yalla sak kon fofu rek lañuy yamale waxtaan bi ci walu koor wi ak weer wi nga xamni ni lañ dëgmal muy ramadan kon mbokk yi euh, weer waagi nonu yalla nañ ci dugg ak jamm ñuy ñaan rek mbokk yépp ñu tënku ci jàkk mbaa fanweer te loolu mooy njàngalem yonent bi sallallahu alayhi wa sallam képp ku ci tënku doo juum wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu